alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne suñu sëriñ borom pays bi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu tagg na ko ni hani an li Ibrahima laaxa hilaaluhu hilaalun badaa linnaazirina jamaaluhu maa ngi ndokkeel sama bopp man Ibrahima mu namm ci boppam moom sëriñ bi ngir cofeelam bu jéggi dayoo ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama weer teru na weer woowu nag moom la ñuy fuglu moom la ñuy moom la ñuy préparé di ko waajal pour lu xéwénal askan wi ak taalibe yi jógee ci biir réew mi ak bitim réew ba tax na tey am nañ daje buñ def fii ñu di ko wax CRD ñu jiite ko ci turi COMAF bi nga xam ne Eh, suñu waajur sëriñ Mouhamadou Mamoun Ibrahima Niass moo ko yoroon yàlla na yàlla yokk leeram moo ko créé woon mboolem xalifa yi fi jaar wëyal ko waaye tamit xalifa bi nga xam ne moo fi nekk te yàlla na yàlla guddal fanam te wéral ko muy Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass confirmé ko dénkuñu ko ñu am ci ndigal loo xam ne nii tënkuwut ci dara lu may ci yàlla kon maa ngi wax ne bés tey waxtaan nañ waxtaan wi avant tout dañuy gërëm monsieur le gouverneur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 mais leer yuy sotteeku yoo xam ne dafay fàttali nit ñi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tax na kon ñun ñuy organiser ak ñu ci dëkk bi yëpp fóotaat nañ suñu xol te xol dafa laaj fóot ni ñuy fóotee yëre mais tam set setal bi am na changement bu ci am boo xam ne nii fas nañ yéen a jël ci ay matuwaay yu baax a baax a baax ndaxte ren dafa tombé ak nawet am na ay changement yoo xam ne tamit am na ci gan yi nga xam ne ñoo jugee bitim réew ren dafay gën a yokk bon ni ñu leen war a accueillir ak ni ñu leen war a tamit accueillir ak ni ñu war a Euh, jël matuwaay pour yombal leen ko li ci état moom ñaan nañ leen ko ba jël nañ disposition yi nga xam ne moom mooy li ci war ci wàllu culture bi tam am na ay changement yoo xam ne nii am na ci ci thèmes yi nga xam ne moom lañu ñu war a waxtaanee mu dëppoo jamono mais tamit ci loo xam dafay indi sécurité ci Sénégal yokk fi jàmm mais tam waxtaanee nañ boole associé ki nga xam ne mooy université Cheikh l'Islam bi fi nekk loolu daawut am amutoon daaw euh, nga xam ne président Macky moo ko initié pour def ko fii Kaolack euh, monsieur le préfet moo ñu ko conseillé woon Euh, gouverneur appuyé ko ñun tam boole nañ leen ci programme ba nga xam ne ñoom tam danañ feeñ ci programme yi waxtaan ci gàttal daal ngir bañ a guddal seen temps euh, mboolem domaine yëpp jëm nañ cee def ay yokkute yoo xam ne nii suñ yàlla dimbalee suñ yéene mat niñ ko bëggee incha allahu taala ku xool gàmm ren bi da nga gis euh, yokkute ak coppeeku bi ci am ñuy lancé appel nag jëmee ko ci mboolem taalibe yëpp góor jigéen ñi leen gàmm gi agsi na Cheikh Ibrahima Mawlana radiyallahu anhu nga xam ne kenn la ci bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn la ci jeex ci yonent bi wax na ne man raama darki fi ishtiyaaqi nabiyina faqad raama amran mustahalan muharrama képp ko sàkku jot ma ci cofeel bi ma àgg ci yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam maa ngi lay xamal na yaa ngi sàkk loo xam ne lu xaraam la yaa ngi sàkk loo xam ne lu lu impossible la kon kooku moom moo ko wax ci làmmiñu sant yàlla nee na ba may bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam boobu yàlla amalagu dara kooku nag lan la wax bi mu nekkee ci tukkeem dafa ne ci tukki rafetu Conakry bu yàgg mu ne qalbi dawaaman bi madina arqubu chahral habibi is arahu yaqrubu maa ngi ci tukki mu sori waaye sama xol yëpp mi ngi aju ci Medina Baye sama xol yëpp mi ngi aju ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ngir lan mu ne parce que weeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi fuglu moo tax ñun fuglu gàmm gi ci lañ nekk kon ñu ngi tàllal loxo taalibe yëpp ci laminu xalifa bi Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima ci laminu pays bi leen oo ñoom ñëpp ñu ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ñu ngi tàllal loxo tam képp kuy sénégalais képp kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu ñëw gàmmu Medina Baye